dafa wuute ndax li ñu déggoon mooy président de la république fukki fan ak ñaar daanaka jàppoon nañu ba am sax ñu tuddee ko vacances euh, foofa ci Russie euh, mu war a accompagner gaynde yi assister seen ay match euh, kon li nga wax mën nañ ko jàpp. waaye li nga xam ni moom la ñu war a jàpp. waaw li nga wax nañ ko jàpp waaye li nga xam ni itam danañ ko dégg te amul. am na solo ñu taxaw ci parce que loolu am na ñu jàpp ni sax mën na porter préjudice ñi nga xam ne ñooy gaynde yi parce que assistance président de la république ci match bu njëkk bi bu ko continuer woon xëy na mën nañu mën nañu mën nañu romb fi nga xam ni foofu lañu fi la ñu taxaw. xam nga euh, maandu moom. Mhm. man mooy li ma gënal ci lépp. Mhm. te mbir mi euh, liñ ci mën a jàpp mooy ci wàllu état li nga xam ni président de la république ameel na ko tàggat yaram. dara manqué wu ci ñu koy sant yàlla ba fii ñu toll nii dem nañu def li ñuy def ba delsi ñu te yàlla na continuer noonu ay coow de problème mu organisation problème mu xaalis li manqué na amuñu avion yooyu yëpp yàlla musal dégg nañ rek ay autorités yu ñu génne seen hôtel yàlla yàlla yàlla génne seen hôtel yàlla dimbali na ci mhm. loolu li ma ci xam as tuut waaw te dégg ko mhm. moo di gis nga hôtel dafa am règle cest a dire que bu fekkente ni dangay ngay def. réservation check out. booy mhm. génn. Mhm. dafa am app. Mhm. buñ la nee midi app bi soo bàyyee sa ay bagages ci biir néeg bi ba 3 heures wala 4 heures bu ko keneen waree jël dinañu jël bagages yi daal di am fu ñu la ko dencal parce que sa digaale ak ñoom foofu la yem. du bor bu ñu war a fay fay ko fayuñu ko dama jàpp ni ci li ma ci xam. ay réservation ay euh, check out. yu waroon a am amul ci waxtu wi mhm. hôtel yi def li nga xam ne mooy règle bi parce que lu amul règle mhm. amul yoon kenn mënu koo yor. d'accord monsieur le ministre c'est important ni nga xam ne noonu nga ciy duggee ak suñu gaynde yi c'est dafa am solo pour itam li nga xam ni am nañ ko ci ci wàllu question ñu aborder ko ak yow dégg nañ li nga xam ni wax nañ la ko euh, donte dañuy bàyyi xel itam li nga xam ni ñu ngi ko doon euh, wax mu nekkoon lu ñu doon wax monsieur le ministre.